gis nga jotaay bi am na solo ci man. foo dégg note demal nga julli te sooy génn dil ànd ak njàpp toujours ngay dem di daan nag sa doole yàlla ubbi la wërsëg bu ci ribaan nag dugg loo ci am nga jox say waajur li ma gënal sax nga jox sa yaay lu ci des nga daani sa doole. yàlla na la yàlla ubbi wërsëg bu yaatu te barkeel boroom kër nga nag da am njaboot jabar ak doom bu ñu manqué dara bu dara ak it bépp doomu aadama boo xam ne yàlla jaarale na wërsëgam ci sa loxo parce que loolu day nekk li ci des boroom kër day jëlale di tànqamlu te di jéggale jamono neexul